إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب yéen mbokk julit yi ñi ngi yeesal di santaat suñu boroom ci xéewalam yi nga xam ne mënuñu koo peeg di yeesal di seede ne moom rek mooy yàlla bi yeyoo ñu koy jaamu di seede ne muhammad jaamam la woon di yonent bu mu yónni ci ñun ñi ngi koy ñaan mu julli ci moom ak jabootam ak ñi koy roy ba ila yawmiddin gannaaw loolu ñi ngi leen di dénk ngeen ragal seen boroom yàlla képp ku ragal yàlla day mboolem xat-xat yoo duggit yàlla dana la ca mës a génne te dana la wërsëgal foo ko foogewul woon gannaaw loolu mbokk julit fan yi ñu nekk day sunu borom yàlla am na ñenn ñoom baaxe ci ay jaamam ñii ngi jóge Sénégal ñii ngi jóge ci yeneeni réew ña nga jëm ca néeg bu tedd boobee di Makka di wuy ji woote borom bi jalla wa ala borom boobu nga xam ne nee na doomu aadama yi day wareef la ci ñoom ñoom ñépp ñu aji ci néegam ba ci képp koo xam ne am na kàttan ci loolu amma képp koo xam ne weddi na sunu borom woom le na ci kaw ay mbindaafon ay mbindaafonam loolu nii wane na mbokk julit ak makka dañoo war a gëm ne ponk la ci ponk l'islam képp ku dem ba jàpp ne aj màkka wóoru ko wala mu dem ba moom programme am xalaatul ne lu mu mën a amit du ko tax a aji suñu borom yàlla nee ne kookee ab yéeféer la boo xam ne yàqulu ma dara ndax moom mooy ki woom lekki donte ne nii mbokk julit aj màkka googu yàlla dogal na ñi koy def ci ay jaamam daanaka bay xool du jege junni bu nekk sax ñaar ak ñetti du ci aji loolu kon day wane ne ak jaamu yàlla la goo xamee ne nii la ca gën a am solo mooy la ca xol ya di def te xam ngeen ne ibrahim alayhi salaam keroog ba mu tabaxee kaaba googee dëkkal fag njabootam bokk na lum ñaanoon yàlla waj'al afidatan min annaasi tahwi ilayhim yàlla na nga def xolu lenn ci jaam yi jéng jëm ci néeg bi looloo tax mboole mi julit boo xam ne ngëm yàlla mi ngi sa xol bëgg dem màkk fokk mu nekk ci sa biir xol ba boo gisee Sénégal xale yi buñ lay ñaanal dañ naan la yàlla na nga dem màkk ayu la chaque ne jullit bu nekk bëgg na loolu kon suñu borom jalla wa ala am na leneen loo xam ne aj na ko ci kaw aj màkk lu bokkul ak rek jëf yi nga xam ne dañ ko ciy jëf te loolu mooy lan mbokk mooy bépp jaamu yàlla boo gis dafa am benn xikma bu nekk ci biir benn sagesse bu tax yàlla subhanahu wa taala faratal ko ci ay jaamam loolu léeg-léeg mu nekk lu ñu comprendre léeg-léeg it mu nekk loo xam ne xamuñu ko waaye li wér ci wér mooy yow doomu aadama gëmal ne sunu borom yàlla du fo sunu borom yàlla du caaxaan du sant doomu aadama yi rek ñuy kër këri ci mbir yoo xam ne amul benn jeexital bal lépp lu mu leen sant rek dafa am intérêt bu ci nekk am njëriñ bu ci nekk doonte ne am na benn xikma boo xam ne mbooli mi jaamu yàllaa ko bokk xikma boobu mooy lan mooy yàlla nattu ay jaamam ndax daan ko déggal ci lim leen sant ndax daan ko déggal ci lim leen tere loolu moom mboolem jaamu yàllaa ko bokk looloo tax yow julit yow sa yónnee ko ci xam lu tax may def sa problème daal mooy ndax yàllaa ko santaane ñu ne waaw yàlla santaane nañ woor kon woor naa woor lu muy jëriñ sama yoon néew ci yàlla santaane nañ julli maa ngi julli julli li muy jëriñ sama yoon néew ci waaye la chaque ne ñàkk koo xam teewul am na xikma mais yow da ngay xam ne xikma bu ci gën a màgg mooy natt bi la yàllay nattu ndax da nga ko déggal wala doo ko déggal mbokk nañu xam ne ak nag bokk na xikma bi ci gën a rëy mooy xikma teqale doomu aadama yi ak bokkaale ak seen borom ak mboole mi façon bokkaale yooyee na doon loolee ay jëmm la na doon loolee ay xalaat la na doon loolee ay loi la na doon loolee ay jubluwaay la ay doomu aadama yëpp war a xam ne dañoo war a jébbulul seen borom yàlla wéetal seen borom yàlla amul lenn lu ñu war a bokkaale ak moom loolu la ak makka mbokk di wane bokk na lay mandarga bu rëy ci ak makka mooy néegu yàlla bu tedd bee mbokk néegu yàlla bu tedd bee bokk ne xikma bu rëy bu tax suñu borom defal ñu ko muy benn symbole benn chiar boo xam ne dafay boolu jullit ñi jullit ñi xam ne am na lu leen regroupé tey jii da ngay gis réew yépp am nañ benn drapeau boo xam ne dañ cay dëppoo ñu xam ne drapeau bi mooy drapeau réew mi tey foo mënoon a dem ci àdduna bi boo gisee drapeau Sénégal xam ko nga xam ne fii sama ambassade moo fa nekk heure boo demoon Makka nga réer gis drapeau Sénégal ne ah fee day sama waa ñoo sama waa dëkk ñoo fa nekk ay mboolem ñi dëkk Sénégal dëppoo nañ ci drapeau boobu def ko ab mandarga naka noonu it la yàlla jëloon kaaba gi def ko muy drapeau julit ñi julit yépp xam ne ñoo bokk benn jubluwaay julit yépp xam ne benn lañu lan moo koy mandargaal muy néegu yàlla boobu nga xam ne tey gis nga ni ngeen tooge nii jublu penku soo demoon waa Japon bu ñuy julli ñoom sow la ñuy jublu nga dem waa Afrique du Sud bu ñuy jublu bu ñuy julli ñoom noor la ñuy julli nga dem Afrique du Nord bu ñuy julli sud la ñuy julli lu wax loolu lu tax loolu mooy ñoom ñépp seen jubluwaay dañuy jël seen kanam dépp ko fa kaaba ga nekk loolu kon bokk mooy mandara bi gën a rëy boo xam ne kaaba gu googu dana ko wane ay wane ne yéen jullit ñi benn ngeen seen jubluwaay benn ngeen moo tax sunu borom jalla wa ala ne wa min haysu xarajta fa walli wajhaka shatra al masjid al haram loolu kon mbokk mooy kaaba gi amma bu ñu xoolee waa ji nga xam ne dafay jóg di aj makka am na loo xam ne da koy def ñu tudde ko armal armal boobee na am bu dee jigéen na moom am na droit sol lu ko neex waaye xam ngeen ne peuple bu mën a doon ci kaw suuf lay représenté la nga xam ne mooy teddaangeem mi ngi aju ci ay góoram réew moo mën a dem ci kaw suuf buñ nee armée réew sàngam génn nañu la chaque ne ñoom ñëpp cent pour cent ay góor la ñu doon bu amee la leen rax ci jigéen du mat sax un sur mille loolu moo tax suñu borom yàlla defit ci aj màkka loo xam ne defu ko ci benn jaamu yàlla tey julli gaa ngi nii na am ñun ñëpp ñoo bokk daje ci néegu bi yàlla bi waxuñu ne séeréer yi kaay leen ci kanam joolaa yi dem leen ci gannaaw ay yéen tubaab yi kaay leen noir yi dem fee déedéet ñun ñëpp ñoo bokk rang yi waaye boo xoolee kii mi ngi sol ab xaftaan kee ma nga sol pantalon chemise kee ma nga sol nangam kee ma nga sol nangam amma buñ demee ba ci ihramu at sunu borom yooyu yépp daf ñu sant ñu éliminé ko daal di summi yére yi sànni fële général d'armée bi summi yéreem caporal bi summi ko médecin bi summi ah technicien bi summi milliardaire bi dañ sol ay galilaam ak yu kenn xamul summi baadoole bi summi ñun ñëpp ñu bokk benn col col googu mooy ñaari morso yu weex yoo xam ne kenn du ko ñaw benn façon melokaanu ñaw du doon xaftaan du doon turki du doon grand boubou du doon dara ñaari morso yoo xam ne kii di buuru Amérique ak buuru Afrique ak ku mën a doon ñëpp buñ demoon màkk ñoo ciy bokk yem ñaari morso la ñuy doon yu weex ñun ñëpp ñu xam ne benn lañu ci kanamu yàlla subhanahu wa taala loolee mbokk kon dañuy gis lii lañu aj armal di jëkk a jàngal ci la nga xamee ne mooy jaamu yàlla gu màgg googu di aj màkka amma bokk na ci loo xamee ne nii suñu borom yàlla dana ko ca dolli mooy araamal waa ji armal mooy bum laala ci ay weem waa ji armal bu mu nekk di parfum waa ji armal bu mu nekk di wax lu jëm ci wàllu sëy ay loolu luñ ciy déggee mooy dëddu àdduna gu mat sëkk boo xamee ne nii loole mi ngi lay waajal ne gis nga yow doomu aadama bis dana ñëw gis nga sa basin yi li mu rafet rafet gis nga sa costume yi li mu rafet rafet gis nga loo mën a am ci kaw suuf bis dana ñëw lépp nga teqalikoo ak moom ñu dugal la ci ab roq sang la daa di lay lëmës ay morso daa di lay teqaleeg léppi adduna bu ko defee waa ji armal moom loolu lay bàyyi xel ay keroog bi mu taxawee ba summee ko ba wadd ba pam war naa xalaat ëllëg moom bis biñ koy waddu looloo tax mi ngi noonu jëmale ko ci boromam subhanahu wa taala mbokk gis nañ ne waa ji nga xam ne dafay armal ba pare ana lan lay wax mooy dafay def lu ñuy tudde talbiya ca loolu mooy lan mooy labbayk allahuma labbayk mooy yàlla man day wuy si naa la waaye ndax ci at gi rek laa la wuy si déedéet labbayka la sharika laka labbayk yàlla wuy si naa la amoo kuñ lay booleel waaye maa ngi sax di la wuy si ci lépp loo ma woo jëme su yàlla ne na ngeen julli da nga julli woor leen woor leen joxel azaka joxel azaka waaye mu ne bàyyi leen riba nga bàyyi njaaloo bàyyil naan sangara bàyyil ila axiri bàyyil labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk ay yàlla maa ngi nangu ne inna alhamda mboolemi cant yi wal niama mboolem xiiwal yi lakk lépp ñeel na la wal mulk mboolem nguuru asamaan ak suuf ñeel na la la sharika lak waajil armal makka loolu lay wax loolu it kon mi wane ne doomu aadama bi ni nga xam ne noonu ni militaires yi bokke benn tenue daal di tënku ci benn règlement militaire boo xam ne nii ca la ñu nekk bokk wenn bakk wu ñuy bakku bokk lenn lu ñuy défendre loolu it la julit yi di mandargal aj makka gannaaw ba nga xamee ne ñoom ñëpp bokk nañu sol benn tenue daal dina commencé di wax benn wax ca kenn du tudd ma sàmma kenn du tudd ma demba amul abou bakar amul omar amul yaa cheikh diw amul yaa xutba diw amul yaa nangam diw ñoom ñépp ñu bokk dellu ca dàtt ba dellu ca reen ba ca cosaan ba te mooy xam ne seen borom yàlla benn la labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk yàlla ñi ngi lay wuyu di sax di la wuyu ay yàlla xam nañ ne amoo kenn koo bokkaale ak la nga xam ne mooy sa ngóor gi gannaaw ba mbokk julit ñooñee nga xam ne dañuy dem di wër kaaba ga loolu sunu borom yàlla moo dogal lépp loo xam ne da koo bind da koo defal mu am loo xam ne da koy wër ci biñ demee ba découvrir la nga xam ne mooy laboratoire yi da ngay gis ne la gën a néew lu scientifique yi di wax ay électron ak yu demee noonu nga xam ne pour gis ko da nga koy multiplier des millions de fois yooyu yépp am nañu ay noyau yoo xam ne ci la ñuy wër loolee nga dem ba tey jii boo demoon tey jii xatta dañ naan la doom ni muy sosoo ci doomu ci biiru yaayam la nga xam ne mooy génne ca góor ña muy spermatozoïde ya la nga xam ne mooy génne ca soxna sa loolee dañuy nekk di ko wër te niñ koy wëre mooy comme ni nit ñi di wëre kaaba gi ay jógandey jor jëm càmmooñ waaye naka noonu nit la ñuy gis suñu suuf si ñu ngi wër jant bi jógandey jor jëm càmmooñ waaye weer bi mi ngi wër suñu suuf si jógandey jor jëm càmmooñ waaye li ñuy tudde jant beeg weer bi ak li muy leeral yépp di système solaire bi lépp ngi wër centre galaxie yi gën a mag jógandey jor jëm càmmooñ loolu muy jàngale la gën a néew ci li gën a néew loo xam ne bët mënu koo gis te yàlla ngi koy juñu ci alquran fala uqsimu bi ma tubsirun wa ma la tubsirun hatta li nga xam ne bët doomu aadama mënul yegg ci gis ko ba baa la gën a rëy ci biddéew yi gën a màgg ñoom ñépp ñoo bokk benn ndigal bu ñuy déglu muy ndigalu borom asamaan ak suuf ñoom ñépp dañuy wër jógandey jor jëm càmmooñ loolu mbokk la ñuy gis yonent bi salallahu alayhi wa sallam di sunu borom waatee ci baytul maamur mu ne baytul maamur day benn néeg la bu nekk ci kaw asamaani juróom-ñaar yàlla ko jagleel malaaka yi ni mu jagleele doomu aadama yi ak jinne yi la nga xam ne mooy kaaba gi bés bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka dañ fa dugg te dootuñu fa dugg te ba ila yawmi din loolu boo ko calculer lay aj ca malaaka yi ëpp na plus de vingt millions de malaaka dañ aj yi chaque année loolee bu ñuy wër kaaba gi dañ koy wër ni ko julit ñi di wëri mbokk gannaaw loolu mu am benn xikma bu rëy ci la nga xam ne mooy aj makka ñeel ña fa dem ak ña fa demul mooy jébbalu gu ñu war a jébbalul yàlla nangul ko ibrahima alayhi salaam mi ngi nii sunu borom bàyyi ko ba mu màgget mu am benn doom mu doo ko may benn doom mu ne ko doom bi demal nga sànni ko nga nga yóbbu ko ci benn place boo xam ne daanaka ay kilomètre kilomètre doomu aadama dëkku fa mbay amu fa ndox amu fa sunu borom ne ko demal nga bàyyi leen foofu ca mooy makka kenn nekk fa woon mu daal di ñëw ànd ak hajara ak doomam ja ismail ñëw mu ne leen toog leen fii mën naa ngi nibbi hajara na ko waaw da ngay dem ana koo ñuy bàyyeel ibrahima dem yoonam mu ne ko ndax yàlla la sant lii mu ne ko waaw mu ne ko kon demal yàlla du ñu seetaan loolee di benn bind boo xam ne bépp góor boo xam ne nii yàlla may na la njaboot war nga cee bàyyi xel ay njaboot gi nga fexe ba teg leen fi neex yàlla jëll waala ibrahima loolu la def léegi la cay xew xamul bàyyi na njabootam ci biir àll ba dem na won na leen gannaaw xamul lu yàllay def ci moom xamul lu yàllay def ci njaboot gi te lii la ñu yàlla subhanahu wa taala sant ca mooy wax nañ leen ko sànq borom bi ne nit ñi day bu doon li ma leen sant dañ ko def mu ne noonu day la kaana xayran lahum wa ashada tasbita wa idan la ataynahum min ladunna ajran azima doomu aadama yi bu ñu wóoluwal seen borom balu yàlla santaane rek ñu def daañ noppalu ba pare daañu am la nga xam ne mooy jàmm waaye gis nga soxna su baax si it déggal gim déggal boroomam déggal gim déggal ibrahim tax na gim nekkoon ndax yàlla santaane li mu ne ko waaw mu ne ko yàlla duñu seetaan waaye yàlla subhanahu wa taala natt na ko ndox ma jeex na ismaila ngi yuuxu mu daal di gis benn tund bu ñuy wax safa mu daw ca kaw xool ndax dana gis ab jig guy jàll mu ñaan leen ndox bu ñu naan gisul mu jóge fa wàcc daw tund wu ñu wax marwa ndax dana gis ku mu ñaan gisul waaye lu lépp découragé wul xam ne ne yàlla subhanahu wa taala du ko seetaan mu koy def di ko def ba def ko juróom-ñaari yoon borom asamaan ak suuf daal di wàcc jibril alayhi salatu wasalaam ngir benn jigéen ngiree màggal la nga xam ne nii mooy wikku gi mu wikku ci moom jibril wàcc këdd suuf zam-zam commencé naan bëx bëx bëx loolee haajira ñëw gis ndox mi daa di ci duy naan moog njab moog doomam ndox mi continué bëx bëx mu naan ko zëm zëm dalal dalal ba loolu moo tax ñu tudde ko zëm zëm sunu yonente alayhi salatu wasalaam ne yàlla yàlla yërëm haajara bu bàyyi woon ndox mi kon zëm zëm dex lay doon tey waaye mbokk nekkul dex ci kaw suuf waaye dex la ci biir suuf dex boo xam ne ñeenti junniy at ñi ngi koy root waa makka mosuñoo dem ne tey zëm-zëm amul teen ba daa daa daa fer abadan te la cay génn ci ay nekk lu doo yàlla rek moo ko xam loolee kon lum ñuy jàngal mooy yow julit nga la way loo sakk wékku ci ci sa boroom te bul découragé benn jeune ñëw na mu ne ne dafa am sëy mu tas fiyaat mu tas ñetti sëy mu tas mu ñëw mu ne ma imam man day vraiment léegi damaa découragé ma ne ko ha da ngaa découragé ñaata yoon nga tante baaxul mu ne ma ñetti yoon ma ne ko ndax dafa gën nga juróom-ñaar mu ne déedéet ma ne ko tànk yëggoo juróom-ñaar bul découragé ay lépp looy sakku ci adduna bu ci gaaw a découragé takk naa jabar baaxul takkaatal baaxul takkaatal dugg naa ci góor ànd góor gi baaxul ànd naa góor gi baaxul kon góor ñëpp a yem ëpp naa def del tante del tante lu baax examen la naka noonu wërsëg la naka noonu lépp looy sakk ci àdduna bu ca découragé même boo ko doon tanti juróom-ñaari yoon ca loolu da ngay gis ne sunu mam haajara découragé wul ba mu demee ca safa dem ca marwa dem safa dem marwa dem safa ba baa juróom-ñaari yoon yàlla di ko seetaan et pourtant yàlla bu ko nekkoon première dem ba rek mu xeccili ko waaye yàlla di ko seetaan naka noonu la yàlla di nattoo ab julit léeg-léeg ngay sàkku dara sunu borom di la seetaan ngay lamb muy échec ngay lamb muy échec waaye ndal la waay bul découragé képp ku wékku ci yàlla na nga war a wékkoo ci moom lu mu yàgg yàgg yàlla dana la xettali ñu bàyyi loolu dem xool tuuti ca ponk ba mujj ci aj màkk mbokk ponk bi mujj ci aj màkk mooy li ñuy taxaw arafat taxaw arafat boobee la nga doon gis ci armal ba nga cay gis ay doomu aadama yépp nag daje benn place ndax aj màkk gis nga ñii ñi ngi jaar madina ñii ngi jaar fii buñ demee màkk ñii nga nekk gox sangam gox sangam ila axiri ci quartier màkk yu bëri yi amma arafat moom benn place la boo xam ne ci benn bis amul bu ko ñaareel ci at mi jullit ñépp ci la ñuy daje taxaw góor ñépp bokk lu ñu sol ñépp jublu ci kenn borom xel yi boo ñépp jublu ci yàlla fàtte nañ képp kuñ doon woo ku dul yàlla commencé di toroxlu ci yàlla ba baa jant bi di so loolee lum ñuy fàttali taxawaay bu mujj ba nga xamee ni nii moo ñuy xaar ñun ñépp heure buñ génnee sunu suñuy bàmmeel ca taxawaay boobu heure buñ fa jógee imma nga jëm ajjana wala imma nga jëm sawara loolee kon heure boo gisee ñi taxaw arafat wala nga dégg ñu taxaw arafat yow mi fa demule sa xel war naa bàyyi xel man day demuma arafat waaye li nga xam ne moom sikk sàkk amu ci la nga xam ne mooy arafat yowmal qiyaama moom doo ko wuute abadan góor du ko wuute jigéen du ko wuute te arafat boobee bu ñu fa jógee naam waa Màkka bu ñu jógee ñi tasaaroo ña nga jëm Indonésie ña nga jëm Amérique ña nga jëm Espagne am na arafat boobu boo fa jógee moom ñaari place dong nga am imma nga jóge fa dem aljanna yal na yàlla defal ñu ko wala nga jóge fa dem feneen yal na yàlla musul ñu ca mbokk loolu da ngay gis ne lii mooy ëllëg ñeente ponk yi gën a màgg ci aj Màkka am naa am na loo xam ne nekkul ci fonk yi waaye ca waajibaat yi ci gën a màgg la bokk te mooy la nga xam ne muy tëj a tëj aj aj màkka te mooy sànni yéen ñi sànni jamaraat ya mbokki sànni jamra gis ngeen moo gën a métti ci aj màkka gi gis ngeen daaw ana ñaata la yàlla jël ci ay shuhada ñoo xam ne nii da leen a jël ca jamra boobu ca la ñu faatoo yal na yàlla sàmm leen ba ren loolee bañ a amati waaye jamra boobu lan mooy jibluwaayam nga defe na magum jëmm jël ay xeer di sànni ab ab pilier loolu taxoon na yàlla di wax déedéet dafa am jubluwaay mooy sunu bàyyi Ibrahim keroog ba mu bëggee rey doomam ja seytaane da koo feeñu ñetti yoon naan ko Ibrahima xanaa da ngaa dof ak jiint noo ci rey sa doom Ibrahima sànni ko ay xeer loolee seytaane dajeeg moom ñetti yoon mu lay woon yow julit heure boo bëggee def lu baax xamal ne seytaane ngi ngembu naan la déet naan la déet bàyyil ba suba bàyyil ba nangam loolee itamit da ngaa war a bari di musul ci seytaane waaye xamal ne lépp lu bon seytaane mi ngi ne cay woo na doon njaalooga lekk ribaaga lekk alali jàmbur yoon def naka su dul noonu seytaane mi ngi ne cay woo naka noonu nga ko war a sànnee sa xol ay muslu yàlla ni musuloo ci yàlla ngir yàlla subhanahu wa taala musul la ci seytaan lii mbokk dañuy gis ne mooy yi gën a am solo ci aj màkka donte ne waxtaane xikma aj màkka loolu ay conférence yu bëri la ak i ak i xutba jàpp nañ ci liñ ci war a wax doy na ala kulli xaal mboolem ñuy waaj jëm màkka yal na yàlla yombalal leen seen aj yal na yàlla déppale leen ñu aj aj ga yonent bi ak i sahabam ajoon yal na yàlla wuuta leen seen njaboot yi ñu bàyyi gannaaw waaye mboolem képp koo xam ne demul yàlla yàlla yóbbu sa xol makka te képp koo xam ne sa xol wér na ne ne su ma amoon pexe yee kattan gi tey dinaa bokk ci ñuy dem lépp ñu dem lañ fa jëlee ci tiyaaba insha allah yàlla subhanahu wa taala dana la ci boole yal na yàlla wërsëgal ñun ñëpp wala ñoo faatu ñu aji néegam bu tedd boobee yal na yàlla wàcceel ñu jàmm suñu njaboot wàcceel ñu ko suñu réew wàcce ko ci ré mboolem réewu julit yal na yàlla rafetal suñu mucc yal na yàlla defal ñu fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa xina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin